خير البرية سلام خديمك الذي كفيته الملام من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yéen mbokk jullit yi rawatina mbokk taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax te jiital ci nuyu bi as-saaxib al fadila as cheikh Mouhamadul Muntaqa al xalifatul aam li taaifatul muridiya di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi loolu te wéral ko noonu lañuy ñuy wàccee di nuyu kilifa barab bi di kilifa kër gi muy cheikh Mouhamadul Moustapha ibnu cheikh Mouhamadul Amin waaye nuyoo boobu yépp nag ñu teg ko ci waajuram di baayam di sëriñam di cheikh Abul Baraka moom cheikh Mouhamadul Fadal moom mi nga xam ne moo yor caay bi kër cheikh Mouhamadul Fadal seen doom seen taaw bu baax bi nekkal leen fii. ci barab bu tedd bi ñu koy wax Aliya di lenn ci pàkki Cheikh Mouhamadul Fadali waaye nag mu rafaatale woon ko jàmbaar yi ñu fàttaliku Cheikh Mouhamadul Amin xam nañ ne kenn fàttewu ko waaye bisam dafa ñëw bis bii la tombeeloon muy 30 juin 2010 ci weeru tubaab ci la fi wuy ju woon boroomam fekki rasulullahi sallallahu alayhi wa dëkkaale jéeg maamam ju tedd ji cheikhul xadim ak waajuram mu tedd maa xam ne moom rek la bëggoon mu cheikh Mouhamadul Fadal ñu koy fàttaliku ci barab bu tedd bii kenn du ko fàtte nag waaye nag daa amoon jikko ko yàlla moo ñaale woon te lam tàggoo woon rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam rek man nañ naka dugal ci loolu mooy nit ku tabe nit ku woyof nit ku yéene woon ñëpp jàmm daan naa dégg ci làmmiñam mu naan wax ne ñett yi du ma xañ doomu aadama sama téléphone sama signature sama dàll lim ci def ci intervention diir bu gàtt na ci fanweeri weer yu fi nekkal Cheikhul Khadim waaye ñëpp gis nañ ne loxoom jote woon na fu ne daan na wax ne taalibe yi rek fi nekk nañ leen fonk te bañ leen a seexlu ndax bu toon ñoom dara du am kon ku joxoon taalibe suñ ci waay wàccuwaay la waaye ku joxoon maamam ju tedd ja wàccuwaay la. la sëñ tubaa doon naan nag bokk na ci set yooyu waxab lana zurriyatan tudiimu alxamala saalihan ya xadiimu zurriyatan tayyibatan tujaddidu nahjal nabi al mustafa taccaxilu kon nag ñu ngi ñaan ci darajey maam yu tedd yooyu mu doon liggéeyal ak waajuram mu tedd wa cheikh Mouhamadul Fadal mu ngërëmu suñ borom di gën a dotteeku ci kawam suñ borom gën kaa dolli leer fa mu nekk dolli ko yërmande moom njabootu Cheikhul Khadim ko fa nekkal yëpp waaye nag ku ne xam na ne Cheikh Mouhamadul Amin Cheikh Mouhamadul Fadal mu ngi ko tuddee rakam xaritam muy Cheikh Mouhamadul Amin moom Cheikhul Khadim Cheikh Mouhamadul nag ñëpp xam nañ ko ndax sëñ Baara ñaar ñi noppi ci moom kuñ noppi ci yow boo góorgóorloo góorloo nga da nga dem mooy waajuram mu tedd ko Cheikh Mouhamadul Fadal. ak turandoom Cheikh Mouhamadoul Amine waaye nag jëmootu Sëriñ Xadim gi fi jamonteel ñoom ñëpp làq na seen ngërëm diggante mag Cheikh Abdoul Ahad ñëpp xam nañ ko diggante mag Cheikh Abdoul Khadir moom ñëpp a ko xam bañ na ko bu daan julli ji àjjuma moo ko daan yóbbu Cheikh Saalih ñëpp xam nañ seen diggante ndax dawaral na ko at yoo xamante ni saa yu Sëriñ Saliou daan génn ngan yooyu mu daan am moom la ko Sëñ Fallu daan booleel mu yor oto bi daan ko dawalal. kon seen diggante ratax na lool ba yàlla dogal bi Serigne Saliou di wuyu boromam fin 2007 di tombeek 28 décembre moom la Cheikh Mouhamadul Amin ñëw ci jotaayu Cheikhul Khadim njëkk a wutu ci Serigne Touba ci sët yi loolu di cër bu rëy di garaat bu kawe kon nag képp ku yàlla booleek moom war ngaa góorlu war ngaa teg sa tànk ci baynal fardi wa sunna mooy nga teg ko ci siraatal mustaqim mooy nga nekk ci lépp lu yàlla digle nga nekk ca lu suñ boroom di tere nga fexe kaa moytu te teg sa tànk li sëñ Tuubaa doon ñaan mooy nekk ci jotaay yi nga xam ne ku la fa fekk dana soppalu bañ a moytu jotaay yi nga xam ne doo fa jëlee dara ñu ngi ñaan yàlla yàlla yàlla yàlla yokki leeram te tas ci barkeem te dolli ko leer fa mu nekk mu dëkkaale jéeg rasulullahi alayhi salaam ak baayam bu tedd ba ak maamam ju tedd ja Cheikhul Khadim di ñaanal kii ko fi nekkal muy Cheikh Mahamadul Moustapha suñ boroom bàyyi ko fi te ko xam ne fa sëñ Baara tàmbalee woon yemoon fa foofu rek la commencé ñu ngi koy ñaanal sémb yi mu sémb yàlla ko yàlla mottali ba naal yeneen ñu ànd ak moom ak mbokki taalibe yëpp rawatina mbokki jullit yëpp noonu ñu koy ñaanale Cheikh Mahamadul Moustapha nag noonu lañ koy ñaanale képp ku suñ Baara jaboote di doom di sët. di mag di ndaw rawatina mbokki taalibe yi ndax sëñ Bara dafa am doomi xol am doomi géño am doomi deret kon ñooñ ñëpp dugg nañ ci biir ñaan gi kiy wax nag seen mbokkum taalibe la mu Cheikh Mouhamadul Moustapha ibnu Cheikh Mouhamadul Moustapha ibnu Cheikh Mouhamadul Amin di taalibe di soppe maa ngi tàllal sama loxo ñëpp ñëpp dolli ko ñaan fa mu nekk ndax ñaan du doy bis bi saa yu ñëwee suñ xel day dem ci moom ñëpp xam nañ ne am na bis bu ñu koy wooteel fii ci xaaliya ndax moom dafa dëppook waajur mu tedd ba ndax ci kazu rajab la dem ñu bàyyi bis booba di ko ci fàttaliku mooy bu ñu nee suba la kazu rajab waaye bis bii nag 30 juin bu ñëwee ñëpp danañ xam ne bis bii la fi jàmbaar bàyyi koo woon fekk baayam mbaag maamam ju tedd ja ñoo ngi ñaan yàlla yàlla ko yàlla dolli yërmande yàlla ko yàlla dolli njëggal yàlla ko yàlla dolli leer njaboot gi mu fi bàyyi yàlla ko suñ borom teg loxoom ci ñoom. te barke bi mu leen bàyyee mu topp leen ba faw ñu ngi koy ñaanal ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.